alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy bi dañoo bëgg a yëkkatiku yow yàlla dañoo bëgg a dolleeku yow yàlla dañoo bëgg a dëgër yow yàlla te loolu yëpp amuñ ko yow yaa am te wax ngeen ne taxaw leen suma buntu ñaan ma may leen ñu ngi day ñaan yow yàlla yal na ñu sàmm yal na ñu sàmmal suñu réew yal na ñu sàmmal suñuy njiiti politique yal na ñu sàmmal suñ jiti ay diiné yal na ñu samal suñ Sénégal ba nga xamné niko ñi fi jitoon bëggé woon ko ci yiw ak kawé ak mbax lépp yow yalla yal ñu ko sottil amuñ dara luñ lay defal yow yalla pour di la laaj waye yow kenn ya bax yaay maye ku la ñaan ak ku la ñaanu yépp ya koy maye ku bax ak ku bon yépp bu la ñaane nga may ko parce que ya wax ne astajib lakum te iblis woo na la te uyu nga ko bon nag ku dul iblis mën nga ko uyu itam bon yow yàlla yàlla nag ñu uyu yàlla na ñu uyu ci suñu jotaay yi yàlla ñu uti ci jotaay bi yàlla nag uyu ci jotaay yi sikkar bi yàlla nag ñu uyu ci jotaay yu yëgante bii ñu yëgante ñun ñëpp ba bi xew bi xewee kuñ ko yëgal rek nga bëgg fee toog nga bëgg koo fekkee yëpp ay ngeneelu yàlla la ay wërsëgu yàlla la yàlla ñu ko yàlla gën a dëgëral yàlla nañu yàlla yokku te taxawuñu te barkeel ñu barkeel suñ njaboot barkeel suñ réew barkeel suñ njiiti politique yi teg leen ci yoon woo xam ne moo dëppook Sénégal moo dëppook Sénégalais yi mooy ne Sénégalais dafa bugg a dooleeku ci lu nekk dafa bëgg a dooleeku ci zahir dafa bëgg a dooleeku ci baatin dafa bëgg a dooleeku ci am-am dafa bëgg a dooleeku ci xam-xam te loolu yëpp itam seen itte ñu ngi ko ci def seen kemb kattan waaye itam des na ñun ak suñ gouvernement ñun ñëpp ñoo ànd di ut pour Sénégal bu boobaa dina gën a yomb yal yàlla xiir suñ gouvernement ci loolu moo ànd ak peuple am ñoom ñëpp ñoo ànd taxaw ci kanam yàlla ñaan ko booba yàlla amul sikk ne dinañu dinañu may ndax. su fekkee am nañu suñuy kilifa ci kanam yàlla jiital leen ci kanam yàlla te kilifa yi du kilifay diine yi rek mooy kilifa yi nga xam ne yàlla def na leen kilifa def na leen kilifay àddina def na leen kilifa ñu may leen ay ndomboy tànk ay kilifa lañ te yàlla wax na ne nañ leen topp nañ leen topp ah atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum wa ulul amri di la borom xam-xam yi wax nañ ci coow ki kan mooy ulul amri waaye ci àddina bi ñu mën a gis ñoom rek dañu gis ne ñooy ulul amri waaye ñoom tamit am na ñoo xam ne ñoom la war a déglu mooy dañuy déglu sëriñ yi ak borom xam-xam yi ndax ñu mun leen a teg ci yoon woo xam ne moo dëppoog euh, bëgg a bëgg dimbale nit pour mu dooleeku bëgg dimbale nit pour mu dooleeku bëgg jox nit ak xam pour mu mën a am fit mën a am ñeme mën a taxaw ci kanam àddinaam laaj ut li mu war a ut ci façon boo xam ne du ci déng-déng parce que utul rek lu dul dafa bugg a dooleeku dafa bugg a yëkkatiku dafa bugg a xam dafa bugg a am dafa bugg yar njabootam dafa bugg a gis réewam mu dal dafa bugg gis réewam mu am jàmm loolu Sénégalais bu nekk moom nga bugg pour Sénégal ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla jubal Sénégal yépp teg ñu si yoon boo xam ne ñu ñëpp suñu xol dana ci dëppoo ne lii la yal ñu yàlla defal loolu ci Sénégal mais jamono bii nag moom dafa mel ni dañoo jël tuuti repos pour pour door a jógaat mais jógaat jot na fi nekk nii jógaat jot na pour suñu bopp jógaat jot na pour suñu réew parce que suñu réew mi euh, fi mu ne compliqué na ko ku am xel da nga xam ne compliqué na jafe na euh, yal nañu ko yàlla teggil yal nañu yàlla teggil jafe-jafe bi euh, teg ñu teg suñu réew ci yoon boo xam ne du mooy bi ko France buggal xam nga suñ ñàkk am gouvernement yu taxaw yu yëpp gouvernement bu taxaw rek yu manifesta na daanu na daanu du ñoom français ñooñu fexeel loolu parce que Sénégal bu amee taxawaay bi mu war a taxaw rek mooy indi sous région bi yëpp ni mu ko élifee ci diine dina ko fi élifee ci politique France bu gut am loolu moo tax complication yëpp France moo koy créé rek sant ko ay nit ñoo mbëlal mbëlal mbëlal fekk waxuñ dara seen bopp la ñuy gaañ moo tax yal nañu yàlla musal ci yàlla nañu yàlla musal ci ci xayu France kuy coloniser nit France moo ci gën a bon ndax du bëgg nga dem du bëgg nga doyal du bëgg nga dem du bëgg nga yëkkatiku du bëgg nga am dara Baye daana wax ne tubaab moo lay jàngal te du bëgg nga xam na français moo lay jàngal te du bëgg nga xam te mooy dëgg fi ne wax nañu wa te ne bëgguñ ñu dem comme état bëgguñ ñu dem comme gouvernement bëgguñ ñu dem ak suñu tànk yu dëgër yem ci kanam waxtu wu nekk ñu bu rek et tout ça du du du du du du vraiment dañuy mais c'est la France parce que Google nous taxaw buggul ñu am gouvernement bu dëgër ñu ñu ñu ñu ak mom la yàlla préparé Sénégal te inshallah dina ci ag inshallah dina ci ag ci ndimbalu yàlla ci mbaxu yàlla ci mbaxu wali yu tedd yi nga xamné waxtu ñu ngi nek ñu ngi daje ngir yàlla di ñaan ngir yàlla di sikkar di tudd yàlla lolu yàlla du ko nénal na na allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la maa al muhsinin lanahdiyannahum subulana subul subu subula naa waxut sa biiru naa pour nga xam ne nit ñi seen seen càkku yi lim bari bari bari bari bari bari du tere leen nahdiyannahum ku nekk fa nga sàkku dana la fa jaaral xaalis ngay ut jaaral fii alal euh, daraja ngay ut jaaral fii xam-xam ngay ut jaaral fii nangam ngay ut jaaral fii nangam ngay ut jaaral fii loolu yépp leen nahdiyannahum subulana ah moo daal di yes na ki nga xam ne moo ko tànn wa inna allaha la maal muhsinin hmm? képp koo xam ne tànn ci yooyu yëpp dara yàlla rek la tànn bu ko defee yàlla na ko ana maak yeddi fi ya dëkk ñu ànd dem seetal ma seetal ma ñooñu fu lu ñuy mat ak lu ñuy def kenn attanu leen ah yàlla kottu kottu moo leen attan moo taxit ñu nekk ak yàlla ci façon bu nga xam ne noonu la ko yàlla bëggee yéenay liggéey fay du baay ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla jox leen